L'école de l'excellence, nous sommes les meilleurs. Somewhere school est passe, somewhere school est L'école de l'excellence, nous sommes les meilleurs. internet yi ba tey ñu des ak yéen rek gannaaw ba ñu leen nuyoo ba tey ñu des ak yéen nag ci li nga xamante ni moo di seen tour tour des acteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo joué ci série bu mag boobu la du ma taay di koy wax série bu mag la production bu mag la boo xam ne bu génnee day naan bëm Sénégal xaar ñaar mu di SMS sama school nag gis nañ bande annonce mais ba tey gisaguñu série looloo waraloon nag ñu suñu micro ñun daje àndandoog acteurs yeeg actrices yi mu mel ne ñu fi toog ak nga xam gis nañ bi mu ni actrice principale bi ñu ko rek mu présenté dama nga présenté wu nga wax euh, mbokk internet kan.

aadama mënu ma leen wax lu bari moom ci côté boobu noonu surprise doon non deewoo sax na yaa ngi toog ñu ngi kay Fatima deewoo ci sër bi mais lan moo tax nga daanu da nga wala bon su ko waxee est am sens tamit non mais wax ma rek ñu xam gis nga prof bi di expliquer nga jóg rek daanu moo tax nag nga waroon may internet yi ñu xam tuti rek tuuti tuuti rek bu wax da oh, non gara, xaar leen ko rek parce que su len leen ko waxee tamit ngeen seetaanaan ko du fait daal. ah Fatima nak. génn voilà. non Fatima nak, ya nga bëgg a nak, ya nga ngi bëgg a timide dëgg yow and nga ak melokaan de wax ma Fatima andor eh, de la série muy eh, Nafi Nafi la nga wax ma Nafi moy kan parce que dafa melni sa personnage ni mu originalé ci série bi tamit eh, lolu nga wane. bon je peux dire que ni série bi tamit bi mo ko drôle bi ma ko joxee.

Bon, non mais mel voilà. J'aime pas trop les, maquiller. Bon, timide na timide, ma mais je suis un peu timide, donc réservé ou voilà bëriwuma sax ay xarit booy xool mooy loolu parce que bëgguma ku ma yegg voilà. moi tax je préfère rester seul voilà mooy loolu. d' accord euh, malgré sa timidité yaa ngi joué théâtre nan nga def ba intégré si série bi. <laughs> bon Mara moo moo gis casting bi après mu woo ma je voulais pas y aller nag mais ne ko ah Mara garaaw mu mu insisté ne ma demal par da ngay dem na fi. Mm-hmm. après ci laa dem après ñu woo ma Diop ne ma yee actrice principal voilà. ma nekk foofu ruube ruube yokku kër gi yëpp mooy loolu mais est maa ngi fekk moom mu fekk comme dégg nga naan Mara Mara mooy sa copain si série bi wala. non non élève bu série bu nekk ci école faral la. Ah, kon yow jàngkat nga daal su ma la déggee bu baax. Mm-hmm. da ngay jàng ci biir classe beeg yooyu noonu. Mm-hmm. d'accord ok ñu gis ne tamit. Euh, kan mooy sa parent si si si série bi gis nañ fa ay acteurs yu mag sax renommé international. Euh, wax ñu rek non wax ñu tuuti rek ñu xam. Mm. duma ko wax kenn kenn dégguñu waxal rek maa ngi yow la. sama bi déjà caméraman yi ñu ngi taxaw nii nga bëgg ni doo ko wax kenn taxawul ak yow rek la comme yow te trop timide. voilà waxal fii kenn nekk fii. yooyu moo la ko waxee waxaale naa ko. du ma ko waxee. non de <laughs> da ngay timide rek timidoo oh. bëggoon naa xam lan mooy sa comportement exact ci biir classe bi. bon. ku cool voilà ah. la vraie vie bon dama bëgg xam ci dara. ba xam yaa ngi ci wala nekkoo ci ba xam. ah loolu est-ce que na ñàkk tamit. ah bon ah timido <laughs> lii laa bëggoon xam internet yi timido la day joué rek day joué day joué série la day joué fi mu ne nii. mënul ñàkk sax. ok hmm. mhm. ah, baax na léegi man bëggoon naa xam euh, na fi ndax dafay jàng walla bon mais teewul yàqaluma dara ci li may show tamit. ci lan nga yëngatu. bëgguma ko wax am public. nee naa Non, maa ngi yow rek a nekk kenn nekk fii waxal rek. non garaaw. ndax est ce na ngay a ba. non bàyyi noonu rek. waaw d'accord amul solo léegi nag bëggoon naa xam naka nga def ba allié ñaari di jàng ak di jouer eh, séeréer ba xam yomb na wala yombul. bon yombul yomb na yombul parce que dama doon quitté xomba di ñëw fii dakaar tournage uniquement Nafi siggil siggil nga wax ak ñun. nee naa am melokaan yaa ngi fii di ah, eh, waaw bon dama doon quitté xomba di ñëw fii nii après mm-hmm. c'était un peu dur pour moi ma ñibbiwaat du coup dama ñëw installé wu fii nii dakaar suma ko bàjjen.

bon gëm-gëm man dama gis ba nga daanoo ci biir série bi am na ku daw dem dem lan moo xewoon. bàyyil noonu affaire série bàyyil noonu après mu nekk lu nouveau ci Sénégalais yépp voilà bu ñu expliqué lépp tamit du am sens wala ñu koy seetaan. Hmm, d'accord euh, tàggatoo la ko internet yi. 5 TV série sama school. maa ngi remercier ci interview bi parce que déplacement voilà gis nañu artistes yu mag yi ñëpp ñu ngi mais da kii ngeen ñëw voilà ma duma kenn nag ma doon mais ñu ngi leen di gërëm baax bi leen sant sans yi ñun tamit duñ dem ñun tamit yéen doon leen rek taw baax voilà. yow it tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax xam naa nag kii nañ la ba sonn nangoo wax mais xam naa moom ay Aïcha ku ay Aïcha moom wala am na beneen gang ñooñ dinañ wax sûrement danga nga tamit moo tax euh, mbokki internet yi loolu lañ leen indiloon tey ci ñi nga xamante ne moo di découverte seen acteur actrice ci série bu mag boobu ñu naan Sama School di leen jox rendez-vous rek ak beneen acteur fii ci 5 TV